initiative bi mi ngi comme maa ngi amoon boulangerie ci Touba mais boulangerie simple woon auparavant ma xool nii comme lu mel ne événement màggal ni ñi dañ fi ñëw soxla produit yu bare bare ma gis ñu koy commandé Dakar di ko indi ma ni pourquoi pas ñu ko mu doon pâtisserie fast food mu doon boulangerie général di def boulangerie pâtisserie fast food cafétéria restauration lépp am na tout mesure barrière comme ni ko service de la santé waxee. muy respecte les mesures barrières moo tax teg nañ sun masque gel alcoolique en même temps dinañ respecter distanciation physique bi incha allah. am cérémonie bu mu mënti doon rek mën nañ ko couvrir en même temps bu dee wàllu dëkk bi aussi ku commandé lu mel ne nga am nga bëgg a am ay kii commandé commande bu mu mën doon dinañ la ko livrer incha allah waaw à domicile. 24 sur 24 yooyu day day day day fonctionné parce que am na équipe bi monté 6 heures 16 heures 16 heures 23 heures 23 heures 6 heures. xanaa superviseur rek gannaaw bi ma daal damay bàyyi personnel bi demal seen bopp incha allah. bëgg qualité incha allah fas nañ ko respecté ndax comme ni ñu koy waxee naan parcelle bu baax en général ci naare lañ koy gisee loolu moom moo gën a doon loo xam si toujours daf ñu xaw a frappé ndax en tant que war a doon euh, patriote waroo mën a seetaan naare rek indi indi produit bu baax moo tax ñu fas yéenee def qualité bu am si daal. fépp fu ñu ko yaakaar dinañ ko installé fii bu soobee yàlla. rafet lu baax a baax lii nga xamante ni benn membre ci ACIS ñoo ko taxawal fii tey. muy boulangerie pâtisserie muy loo xam te ni dañ moom la ñu woo membre yëpp ngir ñu jóge ci informel bi dem ci industrie ngir yokk emploi yi loolu yaakaar naa ci la ñu réew mi xaar ci lañu ñu euh, euh, ñu yor réew mi xaar te loolu it la ñuy woo suñuy membre ndax ku créer ab association wax ni kat dama bëgg mu yokk mu yaatu am loo xam dañoo jóge ci war a jóge ci informel dem ci de dem ci formel loolu wax di yàlla mooy lu mel nii fexe ba euh, emploi yi gën a bari te bu emploi yi gën a bari rek ñiy a bari te loolu mooy li nga xam ne mooy soxla am réew kon ñoo ngi woo a tax na ñoo ngi ci woo membre yi nga xamante ñoo bokk ci assise fexe ba roy ci KSS tey mooy li nga xam ne mooy sunu mébét te moom lañu bëgg di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala

roy ci moom mu doon ay grande espace wala mu doon ay grande eh, yoo xam ni mooy yi gën a yaatu yi nga xam ne moom la réew yi soxla moom lañ soxla ci ñoom daal la ñuy woo membre ACIS ñu fexee ba roy ci KS ndax lii daal sedd na suñu xol te suñu fierté la